ñeenti waxtu genn wàll ñu ngi leen di nuyu di rafetlu bu baax ànd beeg nun xibaari wolof yi ci yaatal Makumba Bey aar li ñu bokk jamono ji ci doxub ñaxtu déparé nañ place de l'indépendance wuti pale des na fekki suñu ndaw la ko topp ci njalbeenu xibaar yi léegi rapport ARMP bi ak saax-saaxee gi ñi Macky Sall fal saax-saaxee xaalisu réew mi ci yorinu marché yi ay leeral itam ci euh, njalbeen gi ak rapport ARMP boobu nga xamante ne ni lu ci bëri fi mu ne nii nag euh, becc nañu ko loi bi jëm ci def viol ak pédophilie sàkku xale yi mu doon nag ab crime ay dëmbooj euh, ni ministre de la justice ma doon jàll ci assemblée national tey jii nañu fexe ba jëfe gi doon loo xamante ne nii benn rëq-rëq du ci am ñaareelu pàcc bi tàggat yaram lay doon arobase ak li ci yéenekaay yi. Abdoulaye Diop maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay yow Makumba Bey. fu ngeen toll jamono ji ci marche bi. ñu ngi nii yaakaar naa li def ñu àgg buntu palais bëritul. Hmm. Guy Marius ak euh, docteur Babacar Diop ànd ak journaliste ñu ngi nii nag di yaa ngi def ngir euh, jàpp leen ba léegi ñu ngi daw leen jàpp ndax fii police bi fi nekk bëriwul. Hmm. benn police moo fi nekk ak ñaar mënuñu leen jàpp ñu ngi leen jéem a arrêté mais ba léegi ñu ngi nii di di di di avancé. di dem hôtel yi fi nga xamante ni moo di li nga xamante ni moo di grille présidentielle bi grille palais présidentiel ñuy way courant <laughs> euh, li ñu waxoon kon defuñu ko parce que préfet dañu woon du amee buntu palais du amee buntu Sénélec ñu ni dañuy déparé place de l'obélisque mais finalement place de l'indépendance lañ mujj déparé. dañoo njuy ñi nga xamante ni ñoo di force de l'ordre yi ñu ngi nii ak nañ buntu palais de la république. ak nañ buntu palais de la république Guy Marius Sagna ñu ngi ne mi ngi ne ñu ko jàpp jàppandu na ci ci kanamu giri bi jàpp na ci giri bi mi ngi xeex ak ñi nga xamante ni moo di gendarme pour ñu jàpp ko ak euh, jàpp nañ ko Guy Marius Sagna mais xam nga dafa doole ñu ngi nii di xeex ñu ngi nii moom ak ay naataangoom dugg na dugal nañ ko ci biir palais bi ci beneen porte bi porte bu gàtt bi nga xamante ni moo dend ak euh, bu mag bi porte boobu noonu xool lañ ko dugal moom ak ñi nga xamante ni Guy Marius Sagna ñu jàpp leen ne Guy Marius Sagna Macoumba Beye ñu ngi ci bi foofu lañ ko dugal porte boobu noonu. Mhm. muy euh, porte bi nekk ci wetu euh, banque bi societé général waaw kay waaw foofu noonu lañ ko dugal. Mhm. mais ana ana ana mais nii nag di a jàpp ñi nga xamante ni ñoom la àndaloon. Mhm. ñu ngi nii maay ñu ngi résister ba léegi ñu ngi nii. est-ce que marché bi bëri woon na ay nit. bëri woon nit de bëri woon nit parce gi Guy Marius mais docteur Babacar Diop ak ay trois wala quatre personnes rek ñu mu àndal. Mhm. ñoom ñoo fi ñëw taxaw tey jii doon manifester. Babacar Diop bu JDS. waaw JDS mais moom ah misaal gisaguma ko nii instant yi. Mhm. gisuma ko nii nii fu mu nekk nii xaw ma fu mu fu mu jaar. mais euh, Guy Marius Sagna dugaluñ ko ci auto police ci biir palais bi lañ ko dugal. ci biir palais bi lañ ko dugal. ñu ngi mel ko mhm. kon dañ lay danaa la yolomal tuuti ba ci kanam bu fekkee am nga lu yees dellu si waat. d'accord d'accord sunu ndaw li ñu toppal kon euh, marché bi fanweeri minute ak ñett gannaaw ñeenti waxtu. ARMP ak rapport bi genn demb njombe yi nga xamni directeur général def nañ ko ci ni ñi passé marché yi bari ci lool lo xamanteni ni ay deung deung la nak ci xaalisu rew mi ni ñu ko yoré ku ci melni Cheikh Omar And Racine Tala ak ki di euh, Siré Dia bok ci ñi nga xamanteni ni nak nag joxar bi nañ leen baram ak Amadou Samba Kan bu Lonas ñu ci ak leral yi Mouhamed Ali Mouba Che Oumar An, ancien directeur général Koud Nekete ministre de l'enseignement supérieur ak que Nekon, directeur général poste nekete tey PCA Lonaz, directeur général yo xamanteni, Danyo Nyak samontel yoon passation de marché wala saa si yorin lu ñep rapport bi ARMP Gene Dembu bo chez Omar An Anne rapport Bobu woné ni nu mu won kudd dara exemple lu mu wax ni mobilier de bureau yoyu ak lu mu ko jëndee mat na millions de francs CFA kon gis ñu xaalis boobu nee na mes ne mentin moom sa Cheikh Anne ci 2017 OFNAC jotoon na ko jàpp euh, loxo ci poche ndaxte dafa jàppoon ni dafa def ay subventions yoo xamante ni jaarul yoon détournement de deniers publics ak usage faux demoon na sa euh, ba OFNAC recommandé kon ñu bañ ko joxaat mu gérer loo xamante ni lu ñëpp bokk naka noonu itam rapport OFNAC bi dafa newoon dañoo war a transmettre dossier Bobu euh, kon justice ce ko de ñu top ko naka non itam ki di ancien directeur général poste mom itam rapport ARMP bi japp nako ko ndaxte ni digënté 2012 ak 2019 nu mu yoré poste bi dara baxu ci joxé na exemple nu mu don defee marché yi dara jaarul yoon naka non itam yenen ñu rapport OFNAC bi mom itam daf ko midi mom mi di accusé ko faux ak usage faux ci ay jëndu matériel bureau waaye nag moom Siré Dia ak Cheikh Oumar Anne dara fekku leen ci Cheikh Oumar Anne moom sa dañ ko jox promotion dañ ko nommé kon ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche naka noonu itam kii di Siré Dia dafa jógee poste waaye nommé nañ ko PCA LONASE ci loolu la ñuy des ba léegi ndee conseil sénégalais des chargeurs du COSEC euh, mi ngi ci session de formation boo xam ni ci wàllu passation de marché la ñu waxaale itam seen mébét mooy bëgg Sénégal doon barab boo xamante ne ci euh, sous région bi maanaam ci Afrique Afrique euh, sow euh, jant dinañu gën a yaatal bu baax euh, marché yi exemple koo xamante ne nii yaa ngay liggéeye ngaay dootoo daggali dàll rek waa Sénégal waaye da ngay daggal dàll ñoo xamante ne nii bu ñu leen wàññee ñoom ñëpp toll nañ ci milliards yi dañ ciy déglu Mamadou Ndiond mooy seen directeur général ci micro Abdourahmane Diallo ca Mbour. COSEC day jàppale képp ku yëngu ci importation exportation tey gi Sénégal dëkk la boo xamante ne ubb gën na ubbeeku ci wàllu géej gi ndax am nañu port am nañu projet poor yu mag mais Sénégal également. disons gën a ubbeeku ci walu yoon yi egg ci àll bi maintenant li ki des rek mooy fexe ba léegi sunu opérateur économique yi ñu gën leen a tàggat pour lan parce que marché bi nuy am après marché boo xamante ne du ci am droit de douane du ci am ay taxes yenn taxes yi mooy marché Afrique nga xamante ne milliard la ak ñaari téeméeri millions de consommateurs nu muy tekki sénégalais bi defar dal ca fale ca ngaay dina ko mën a jaay ba Afrique du Sud en zone free tax kon marché sénégalais boobu nekk ngaay dootul marché wu 15 millions de sénégalais marché un milliard 200 millions d' africains lay doon kon day am gën a ubbeeku li ki des nag mooy nan la ñuy encadrer sénégalais boobu ba mu mën a fexe ba marché yooyu mu gagné ko ci yooyu la ñuy la ñuy la ñuy liggéey euh, te chargeur yi incha allahu COSEC dina leen gën a jàppale mais li ci ëpp solo aussi mooy Sénégal war nañ gën a baral lépp luy ay entrepôt defar ko ci àll bi pour que aussi entrepôt yooyu mën a nekk ay base yoo xamante ne ci la ñuy déparé pour mën a conquérir l' Afrique et ñu ñu ngi leen doon euh, xibaar ci euh, bëccëg euh, nit ku faatu ci suuf su màbb ca fa ñuy gase or ba ca Sabadola ca département Saraya muy ñaareelu yoon nag suuf sa di màbb foofee ci diir bu gàtt bu njëkk ba nag am na ñett nit ñoo xam ni amoon nañ ci nag ñàkkoon nañ ci bakkan faatu woon ci kon ca Batanko ci lu toll ci fanweeri kilomètre ak Kédougou doon loo xam ne nag mu ngi tàmbalee jaaxal fi mu ne nii ña fay gas wurusa ministre de la justice ca kanamu euh, député ya ngir ñu nattal ko li muy yor ci wàllu budget mbiri Karim Wade dellu si na fa bu baax a baax ak xalifa Khalifa Ababacar Sall ni ko gouvernement bi euh, yore waaye député Aïda Mbodj moom fi mu teg baaraamam mooy loi bi nga xam ni keroog ci conseil des ministres bëkki démb ci la ñu wax ni nag léegi. viol day doon euh, crime ni ki itam pédophilie maanaam sàkk gone yu ndaw ndawaan yi loolee nag euh, Aïda Mbodj euh, sàkku na ci ministre de la justice mu fexe ba bu ñu yeggee ci jëfe gi nag mu doon loo xamante ne nii lu wer peng lay doon ñu déglu ko ci micro Amadou Sabar ba la cause a ah ci li ma gis li nga xamante ne moom la askan bi yëpp doon ñaxtu dégg ngeen ko te bi nga fi jàllee après conseil des ministres bi daal ngeen adopté loi 65 60 bi nga xamante ni dafa ñëw pour criminaliser li nga xamante ni moom mooy viol loolee lépp neex na te gis nañ politique bi ngeen xamante ni yéen a ngi def wante balaa mu doon gën a neex ñu gis ngeen adopté ko. loolee mooy giifal suñu xol projet de loi voté ko baax na wante adopté ko ba ñi nga xamante ni ñoom ñooy def ñaawteef yooyu le ñu mën leen a yóbbu ci yoon yoon dal seen kaw fi mu toll nii loolu rek la ñuy xaar ngeen adopté ko pour mën a giifal suñu xol. Aïda Mbodj ci micro Amadou Sabar ba sànq ca assemblée national ba tey euh, bi euh, budget bi di wéy di euh, voté ci kanam tuuti ministre de la jeunesse moom moo war a jàll foofee tey jii di yoonam bu njëkk ci kanamu député yi ci plénière. ñu wax ci wàllu euh, gone yi ba léegi ak euh, ñi nga xam ne nag euh, ñoom dañ leen di faral di métital kuréel gii di synergie d'action bëgg nag gouvernement bi gën a góorgóorlu bu baax a baax ci teg ay barab yoo xamante ne dinañ fa mën a dem ba li ñu leen di moytul yëpp du fa yegg reportage du jour bi xam ngeen ni fan yi yëpp ñu ngi ciy ànd ak yéen gannaaw ba cooli jollee ba léegi Pape Balla Gueye façon métit bu ne ñi di ko teg ci seeni kaw prise en charge ndaw yi dafa doon loo xamante ne lu am solo la jamono jilee moom mi nga xam ne moom moo jiite coalition national association ak ONG yi nga xam ne ñoo yëngu ci mbirum ndaw yi le François Raoul Latouf nag muy xamle ne jamono ji ñëpp dañoo war a boole seen doole di yëkkateendoo tey dóorandoo su ko defee ñu gën a mën a jàppale ndaw yi nga xamante ne dañuy teg ay métit ci seeni kaw muy société civile lépp loo xam ni njàngale mu diine comme que ñoom seen responsabilité la nekk ñun tam dañu war a dem toog ak ñoom waxtaan ak ñoom xamal leen ñun lan la ñu wax ci loolu parce que itam li bon mooy nit ñi di prêter ay intention ay nit nit ñi ñoo wax nangam ñoo wax nangam fekk na loolu du xalaati ni xalaati ñi xam lan la mooy xale jàng jàng bi gën ci ñoom moom mi nekk sociologue ji bi jaxate nag mu jàpp ne mbir yi lépp li ko war a mën a saafara bokk na ci njaboot gi ñoom itam daal di gën a taxaw ngir jàpp ci liggéey bi parce que tamit ak loo mën a lijjanti te wéyjur yi nekk fa dugal luñ fa seen loxo du mën a sotti alors nguur gi faw tamit ñu gën a dugal seen loxo ci barab yi nga xam ne dañ koy waajal pour xale yi nga xam ne dañu am ay jafe-jafe ñu leen di gunge ci barab yooyu te loolu barab yooyu tamit mu nekk ay nit yoo xam ne waajal nañ leen am nañu xarañte bu toll ni dinañu mën a xam xale bi lu mu soxla jàppale ndaw yi nga xamante ne dañoo teg ay métti ci seen i kaw doon loo xamante ne yombul njiital association ak ONG yi nga xam ne ñooy xeex ngir jàppale ndaw yi le di rawul latuf mu jàpp ne jéego yi nga xamante ne moom la nguur gi def jamono ji ba tey taxul ñu am liñ ci bëgg budget bi nga xam ne moom lañu jël consacré xale tolluwul lenn par rapport ak budget global Sénégal jël leen en charge comme la laaj te comme faaw nga teg ko pour mënuñu jël en charge loolu mooy indi orientation yi ci wàllu éducation bi ku nekk sa doom ban forme éducation la bëgg a def ku nekk sa doom éducation moo def war na fekk proposition bi état teg ko fi loolu moo tax état ñu waxoon ni tam ci à ce niveau am na projet de loi pourtant statut daara kon projet de loi boobu dañ ko war a arrêté net ko en application. ñu gis ne métti yi nga xam ne moom la ñuy teg ci ndaw yi dafa gën a bari ci biir réew mi jamono ji nag ñi nga xamante ni ñooy yëngu ci kuréel yi aar ndaw yi lay li ñu gis mooy faw rek ñu daal di gën a ñaax askan wi su ko defee ñu gën a mën a taxaw di leen jàpp jàppale ñu bañ leen di def naka su noonu. mu nekkoon Pape Balla géey ñeent fukki minute ak ñaar gannaaw ñeenti waxtu ci rajo Futur Media. pour RFM rajo bi gën seen soxla. élèves maîtres yi tey jii lañ doon amal seen ñeenteelu édition fin de stage doonoon euh, jamono boo xam ne nag euh, ministre de l' éducation nationale daal na ci euh, annoncé ay xeeti njàng moo xamante ne ni day dëppoo ak xarala yu bees yi ngir njàng mi nag gën a mën a daj ñu bari fu gën a yaatu. ci loo xamante ne nii ni lay gën a yombe dañ ciy daal di ànd ak leeral yi mu li toll nañ ci junni ak juróom-ñaari téeméer juróom fukki jàngalekat yoo xam ne dugg nañ ci njàngale mi fukk nag ci ñoom jot nañ leen jox seen distinction ci wàllum français bi cinq nag ci wàllum arab bi jëw jëwriñ ju dénk wàllum njàng mi di xam le ne rek jël na ay matuwaay ngir gën a mën a gunge ñi nga xam ne ñoo di jàngalekat yi ci walum tagat gi Mamadou Talla. am nañu défi bu xamné bu am solo ci Sénégal moy que dañu bëgg dans les trois premières années képp ko xamné ne mu ngi si biir école nga mëna lire di bind di di calculer. et lool nak 3 ans laa donc très tôt ñu am ay enseignants yu baax ñu xamné ay outils yu baax yu bees ci sen centre yi et également ci école yi. ci ñeenteel édition remise diplôme fin de stage élève maître yi ministre bi nak di xamné ni place bi nga xamné mom moom la wàllum jàng bi am ci walum tagat ndaw ñi. parce que mëno xey rek un beau jour nga dem jangal pédagogie dafa laaj ay matière yu bëri ñooy ànd pour que nit ki mun a am préparatif yu baax pour que am na déontologie am na culture am na histoire am na connaissance académique même au niveau de ta de ta matière. ki nga xam ne moo représenté élève maître bu nekk ci comité départemental protection de l' enfant bu Rufisque ne taxaw nañu ngir jox ndaw ñi formation bu am qualité Mamadou Badara Niane. lu ñu xaar ci ñun mooy ñu génn. dem fekk suñu rakk yeeg suñu doom yi nekk ci fu nekk ci Sénégal jàngal leen xam-xam bu mucc ayib mais aussi yar leen yiir leen ndax loolu la ñu jëlee te am yaakaar suñu lool. jëwriñ dénk wàllum jàng mi nag ne bëgg na fii ak at mi di ñëw ñuy amal cérémonie bi avant ubbite lekkool yi. ngir mën a fàttale nit ñi concept bi nga xam ni moo di ubbi tey jàng tey édition bi nag may na ñu décorer fukk ci ay enseignants yoo xam ne dañu doon servir ci wàllum njàng mi. mu nekkoon leerali euh, Umu Kalsom euh, li ñu tàbbi ci xibaaru euh, tàggat yaram. tàggat yaram Malal Junior maa ngi lay nuyu. maa ngi la fay Alaaji Makumba. ñu di ko wàllu wàllub euh, ci soccer ji. Mhm. Euh, gannaaw ba nga xamee ni Sénégal daanaka euh, door nañ leen ba nu daal di toog ci quart de finale Portugal def loola. gaynde yi seen bopp nag ñi ngay xayma ak càmbar la leen fa liggéey bokk na ca gaynde yooyu ak kenn ci ñoom di Al Seyni. Ndiaye nga xam ni moo di capitaine bi sax nag euh, nee na daal euh, lanu mëbatoon ca euh, njombaxtal ga yegguñu ca lu tax nag loolu lépp waxtaanee na ko ak Sode Thiam ma toogal RFM foofa. Alhamdulillah, naan li ñu bëggoon doxul donc yàlla moo ko ni tey moom je pense que pas notre jour parce que boo xoolee tey suñu deuxième bi bu ñu encaissé ñoo ko corner défenseur yi ñëpp monté pour marqué alors que temps bi desoon na donc dañu xawoon yàkkamti donc te tey tactiquement bon je peux dire était en place mais tey li ñu euh, portugais bal bi dafa bari trop donc tey ñoom lañ bàyyi ñu trois yëpp ñoom ñoo déroulé aussi tey suñu yi am di jégalu parce que suñu objectif moo doon euh, atteindre le demi-finale donc boobu ba léegi atteindre guñ ko donc euh, dañuy continuer di liggéey maintenant na trop ak euh, effort yi fédération sénégalaise de football def yëpp si ñun pendant tout ce temps là c'était pour atteindre le demi-finale au moins donc yàlla dogalu ko donc dañuy continuer liggéey donc di jégaluwaat peuple sénégalais bi yëpp yëpp yëpp di leen wax ne tey suñu bëgg-bëgg moo nekkoon gagné tey pour que prochain coupe du monde Afrique am trois représentants mais malheureusement donc euh, dañuy continuer waat préparer les séances de 2021 inshallah allah. Alseyni capitaine bi mooy wax noonu kon yëf yi dina ko yeggali nag euh, gannaaw ba nga xamee ni Sénégal ak africain yi ñoom daal di nañu ca daal di rek euh, toog kon programme ba léegi ci demi-finale yi ñii lay tëddee ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa Italie ñoom seen digganteeg Russie lay doon. Euh, Japon ak euh, Portugal ñoo war kon laale ci wàllu football ak Angleterre Unai Emery bu Arsenal dàq nañ ko. tekki na ndombal tànk i bu ñu leen dóoree démb ca euh, Europa Ligue ja moom nag euh, mi nekkoon cap entraîneur bu Paris Saint-Germain dañ ko daal di tekkale ndombal tànkam ndax dañu gis ni daal euh, yëf ya doxeewut nanu ko bëggee woon boobu ba léegi ñu ngi ko doon laaxarti ba tax ñu daal di kon tekki ndombal tànkam gënër si kon dees nag di wutati keneen ko xam ni moo leen di tàggat gannaaw ba nga xamee ni nag Arsène Wenger dem na ba léegi daal noo ngi làmbatu waaye amagunu li nu bëgg ñu jeexal ak karaté ji euh, ñi ngi amal tournoi bu international bu ca Ndar suba euh, bi mooy euh, guleet nu ko amal ca complexe sportif bu Dijamari ca Sindone ca tàkkal tax ga fa la nu ko amalee loola nag ñu ngi cay waaj ak di ci bëgg a dalal ay gan yu bëri jóge bitim réew Nabi Sila tegal nu ca Ndar moo ci indi xabaar. lépp juróom fukk officiel ay officiels ak i combattants yu toll ci ñaari téeméer doon première édition tournoi international karaté bu biley maître Nafissatou du ceinture tournoir, bokk ci Sor Karaté Club moo di njiitu comité d'organisation bi lay championnat karaté la bu nga xamee ni dañuy dajale fii ci Ndar combattant yi nekk Sénégal yëpp ak combattant yi nekk ci sous-région bi la Guinée la Mauritanie le Cap-Vert la zone 1 ñu koy def ngir salgar suñu maître bi nga xamee depuis 30 ans mi ñuy formé di ñu indil ay champions di ñu ay titre muy ku ñuy wax Intiba l'initiateur principal de cet événement muy Pape Dame Diop. nañ ni tournoi bi soxna na lool kay te kilifa yi war ci dugal sen loxo bu baakha ndax nak ndang bëgg na njëkkeelu tournoi bi doon luñu naw ci bi réew mi ak bitim réew. suñu combattant yi fu taxaw war na no mëna dem. Euh, compétir te jël fa ndam suñu administration tamit donc ci seen si président Alassane Touré ba ki ci gën a ndaw ñu ngi ci liggéey bu nga xamee ni macha allah ku ñu ci jàppale ñu dem ci kanam jàppale boobu nag moo des tuuti par rapport ak ñaari téeméer si ay combattants cinq euh, juróom fukk ci ay officiels kon loolu du lu yomb. daanaka officiels yi commencé nañu egsi ci ndang mu bokk ci itam ay club yu jógee ci biir réew mi ak Afrique soowu jant RFM Saint-Louis Mohamed Nabi tubarkalla ba tàkkal dax ga mooy boori dex gi. ñun na xam nga ay saalum saalum lañ. amuñu vocabulaire yooyu. <laughs> ma nga noonu. ñun xurwa ak jor ga ak tund ak gën a miin. waaw noonu. ñun nag ay bëlëg yooyu la ñuy wax. <laughs> <laughs> arobase ñu ànd ceeg Fama Dione. dalee na jàmm seen numéro arobase spécial Abuja. nekk capitale fédérale bu Nigeria, Abuja am ay jafe-jafe ngir am connexion bu baax stabilité internet bi nekkatul lu ñuy lam-laamee suñu naataangoo yi bàyyeekoo Sénégal ñëw fii ci parlement CEDEAO duñ ñu weddi ñoom nag amoon nañu ay jafe-jafe ngir mën a yónnee élément jafe-jafe yu métti métti métti vraiment ndax euh, xam nga yow li nekk ci am élément war ko envoyé la relation centrale de la xaar nga war ko yónnee te mënul dem loolu c'est tout un problème arrivé à deux reprises éléments yoo xam monté naa ko ba pare le jour mënuma ko jàllale ndax awma euh, connexion internet bu baax. la connexion internet est très défectueuse. lol dal don na loo xam ni nii. ñu koy ñaawl leneen li nga xam ne ñun moo ci dimli ñi nga xam ne dañuy yëngu si wàllu presse écrite ñun temps bi nga xam mom lañu soxla sax internet moy temps bu ñu envoyer suñu papier mais mën nañoo toog ñëw ci suñu ubi suñu page Word bind sa article mën naa doon 30 minutes une heure de temps nga bind 2 ou 3 articles mais internet benn durée bu minime nga ko soxla pour envoyer ces articles si Dakar. woon nañu yem parce que ce n'était pas évident tamit pour ñun dëkk bu mel ni Abuja nga xam ne bureau wala bërëb yu bëri yoo xam ne dañ ko fiitu fekk fii nii lu ci mel ni sax siège parlement bu CEDEAO nekk fële ci fu ñuy wax ki donc ñun sax daanaka foofu la ñuy liggéey ndax lu si ëpp suñuy activité foofu la waaye wifi yu bëri na macha allah foofu wifi ñu fa amal bëri na mais jafe-jafe bi ñuy gën a am mooy que ne wifi pour nga connecté aussi dinañ la jox code ak lepp mais wifi moo stable wifi bi mën dox léegi jamono bi dootul dox yu mel noonu donc ku ci melni man comme vidéo lay liggéey té damay def ay envoi yo xamné yenn say day laaj mu gaaw lenn la mujjé def moy dem jënd benn puce bo xamné ne puce dëkk bi la def si forfait connexion jafé jafé nga jot ci internet nek na lu yagg fi ci Abuja ki indi CD bi di webmaster bu parlement CEDEAO moom nag nee na bande passante yi nga xam mom ne joxé entreprise yi mom matul ñu teew lay kaddom waaw dëgg la euh, internet moom daanaka fii pour ñu mën ci accéder lu jafe la muy ci institution yi muy ci entreprise yi muy aussi au niveau des particuliers daanaka li ñuy woowee ci tubaab bande passante yi yi nga xam ne opérateurs yi euh, ñu ngi koy mettre à la disposition donc de toutes ces structures fa mel ni doyul ndax su ma jëlee benn exemple rek nga dem ci benn entreprise boo xam ne lu ëpp ñaar fukki nit wala fanweeri nit ñu ngi fa euh, daanaka réseau bu ñuy am day jafe trop ñëpp mën ci connecté en même temps looloo tax tamit euh, au niveau entreprise yi tamit connexion bi nekk na loo xam ne obstacle la pour euh, l' accélération comme ni ñu koy wax l' accélération du développement mais également de la révolution numérique. sénateur la dolli ci doon député doomu Nigeria, Magaji Da Aliou ne waaw réew mi day jànkuwanteel ay jafe-jafe ngir stabilité internet bi moom nag nee na bokk na ci lakk waral askan wi nga xamante ni day xel di yokku te débit bi du topp ñu teew teewlay kàddoom you see the, the, the population if you are comparing the how the speed of the data is lower than what it is entails in other country you see now the biggest challenge on the on the speed you understand um, is out of the outlook because it's managed by individual ICT companies but we are aware now and where where the government is investing in equipment ICT equipment to ensure that the, the speed of mm-hmm. light the speed of the data and the price also crashes from this month. fii ci Nigeria, accès connectivité internet illimité bu abordable ak fiable nekk na ab jafe-jafe rawatina ci entreprise yi lu yàggul dara ab ponkal ci wàllum fourniture service internet di ko jaarale ci énergie solaire ci Afrique sowu jant nee na dina amal lancement réseau 4G LTE fii ci Nigeria. la ko tax a yokku accès connectivité haut débit nga xamante ni njëgg du cher ci askan wi nga xamante ni ñoo nekk fii ci Nigeria. jërë ngeen jëf li moo nekkoon seen spécial arobage ñu defee ko fii ci Abuja